jaajëfal nañu leen bu baax ci topp bi nga xamante ne nag yéen a ñu koy topp ci internet bii di réew mi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañ koy doo rek ñetti weer ginnaaw rek kii di Anta Babacar Ngom nag mën ngay yëkkati ay kàddoom rek nag di ko jagleel askan wi moom nag la mu daal di xam ne rek moo dina nag dégg na ay rumeur ñu koy tooñ ak ñaawal moom Anta Babacar Ngom nga xamante ne rek nekkoon na candidat ci élection présidentielle yi nga xamante ne rek moom la ñu jàll nekk nag membre éminent bu cadre de concertation pour le respect la préservation promotion des droits de la femme moom ci jëmi boppam rek nekk nag ab soxna soo xamante ne daal dina yëkkati kàddoom rek jëmale ko ci vision bi nga xamante ne daal di bu Sénégal ginnaaw bu mu jëlee la mu daal di xam ne ci contexte bi nga xamante ne rek ñoo ngi ci formation gouvernement bu Ousmane Sonko bile moom nag daal dina yëkkati ay critique rek jaarale ko nag ci représentation jigéen ñi nga xamante ne rek néew na niki samedi 4 mai moom ci jëmi boppam rek ci trouve féministe yëpp yëpp daal dina yëkkati kàddoom nag di naqaalu rek anam bi nga xamante ne rek la ñu gisee ne nag gouvernement bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy soxna yi dañ caa daal di tuuti lool kii di Anta Babacar Ngom nag daal dinay jël ci boobule opposition di ñi seen jëm bopp ñu gën a engagé wu nag ci langum politique bu ko defee rek ñu mën am combat boo xamante ne rek bu mucc ay lay doon dana nekk tey jii moom ci jëmi boppam rek en tant que Anta Babacar Ngom nekk femme politique dina assumer lépp loo xamante ne rek ay déclaration la mu daal di cay yokkaat nee na tey la gën a am détermination naam sax yoon bi bari na ay jam-jam ginnaaw rek bi ñu jàllee ci campagne présidentielle yi waaye nag li ko leer la rek mooy am na capacité te pare na rek pour yéeg ci li nga xamante ne moom mooy haute fonction bu état ba tey mu daal di cay yokk moom ci jëm boppam daal moom gëm na boppam te gëm na boppam tey te combat bi nga xamante ne rek mu ngi koy combat yàlla rek la koy daal di seedeel ndax moom ci jëmmi boppam rek bés dina ñëw nag mu yegg si ak ñaxtu waxee na nag seen place am nañ seen place ci li nga xamante ne rek moom mooy ci wàllum réew mi ñeel dirigeant yi nga xamante ne rek jamono ji daal nañu souligner important autonomie politique kon nag jot na rek ñoom ci seen jëmi bopp ñu daal di xeexal seen bopp nag ngir mun a bokk ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy teewal askan wi ndax mbir mu nu mel nekkul espoir ci jëmi boppam waaye nag faw rek ñu daal di koy def ci xelu askan wi rawatina nag ñu nekk ci bopp nguur gi waaye nag nomination yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci poste yi daal moom ci jëmi boppam daal mënu koo supporter ndax gis na ne rek daal jigéen ñi dañ leen ca néewal lool di kat yi nga xamante ne koy yëkkati